wajal ilaahi maskani tubaabat mislas mi abi jaay xayri man abad wasalli al ali afdal salaat wa aalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man xaddamani aw saara fa najji i waxfir lahu aw saara وكل من ci luy naaw dugg ci luy daw ci ndox oto ak raay lépp ngir dem Tuuba mu mel ni ki tey yoon yépp Tuuba la jëm ku jekk ku di ku ñu jekku ak ku jekkaliku ku jàq jëm tuuba benn jëmm tudde boppam abdullahi dib xaadim ci ngën gi mbindeef wéet tabax ab dëkk bopp ña ko jiitu woon lottu nañu ci tànnal ko tur wu jafe wu weet muy Touba. asalaamaaleykum tey jii ñu fas yéene ñëw andi leen benn reportage boo xam ne nii daf leen di xamale ak dëkk bu sell bi di Touba. Touba ñu mën koo jàppee sax am réew mu am taxawaay yu bari yoo xam ne nii am na ko ci lislaam am ko itam ci wàllu économie am ko ci fànn yu bëree bëri. lu jëm ci Touba kon seen télévision Touba TV fas yéene ñëw xamale leen ak dëkk bi lan mooy cosaanam kan moo ko sanc ci lan la ko sancee nan la ko sancee fan la aw turam soxi ko loolu lépp kon day daal di tàbbi ci reportage bi nga xam ne nii seen télévision Touba TV moo leen ko fas yéene amal. xam nga histoire moom niñ la koy solo day wuute kii da lay wax lii kii da lay wax lii waaye nag dañoo méngale ay ay ay ay solo yu baree baree bari ba génne ci li ñuy bëgg a tënk. moom. ni ma la ko waxoon ci njëlbeen mooy texe texe moom yóbbaal na lépp mooy koo xam ne kii raw na ci àdduna raw ci àllaaxira lépp loo xam ne li lor la rek suñu borom musul na ko ci. tubaab baatu baatu arab la cosaan arab la mi ngi jógee ci baat bu ñuy wax taaba taaba nag bu ko waxee mooy lu bëri lu teey lu teey wala lu mel noonu. bu dee tur yi moom. ñu ngi ko jëlee ci alquran al karim lasina amanu wa amilu salat tuuba lahum wa husnu tuuba am na ci yenn hadis yu wax ne ak garab la gone ci àjjana goo xam ne gi juróom-ñetti àjjana yëpp benn bu nekk ab caar am na fa am na ñeneen ñu wax it yeneen waa tuuba ni ma ko waxee sànq yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne shajaratu tuuba maanaam garab gi ñuy tuddee tuuba xam nga àjjana ci boppam li muy firi mooy jardin aljanna mooy garab yu naat yu rafet yu bari meññeent fu neex a féexloo fu neex a tëdd loolu la aj ci boppam di firi dañuy wax ne arab bu la waxee ne tuubaa naka bu la waxee lu mel baat boobu mooy ne aw yiw ñeel na la wala lu teey ñëw na ci yow kon baat bi foofu la jóge muy baat bu siiw nag ci lislaam bu ñu xam ne ci lislaam ndox ñëw na ci alquran karim alladina amanu wa amilu saalihaati tuuba lahum xusna ab loolu alquran la ñëw na ci tuuba d'abord bala ma ñëw foofu dama la njëkk wax ne la tur bi mi ngi jugee ci euh, benn garab bu nekk àjjana ci version yi gën a siiw. ndax li ko alxuraan waxee ñi nga xam dañuy dañuy jaamu yàlla te gëm yàlla tey def lu baax. Touba ñeel na leen. Touba gu moom moo texele texele firi moom foofu la jëlee tur bi moom. waaye Touba itam ak garab la goo xam ne dafa nekk ci biir àjjana. goo xam ne cari garab gi. ni ko yonent sallallahu alayhi wasallam waxee day dugg ba ci chambre yi maanaam néeg yi. yi nit yi nekk meññent bi itam amul waxtu amul période amul benn jamono jamono bu ne mi ngi ñor nit ku nekk dana la dugg ci sa biir néeg nga mos ko nga di ko di ca lekk euh, loo soxla rek boo yëkkatee sa loxo meññet mi si te na ko bëggee noonu lay mel loola mooy sajaratu tuba tuba ak garab la goo xam ne nii ma nga ca aljana ni ko ni ko boroom xam-xam yi leeral tamit wax ni nit ki mën naa war dara dox ci ker gi lu mat téeméeri at te du ko jeexal loolu xadis la boo xam ne nii Yonent bi sallam moo ko wax kon dafa mel ne sëriñ boppam doon na melal garab googu ci téeréem bu baax téeréem bu bag boobu ñuy wax sirkul jawaahir téeréem muy téere boo xam ne dajale na ci ay ngeneen yu baree baree baree bëri foofu indi na fi benn xadis boo xam ne ni nga ko jëlee ci kaabu bu axbaar yi mu jëlee ko ci Yonent bi sallam mu wax ne garab gi gën a màgg ci màgg ci mooy garab ga ñuy wax tuuba mu ne bànqaaseet dafay muur néegi aljana mooy ku set wicc koo xam ne kii moom maanaa maanaam lenn loo xam ne lii rek manaa lu koy indil ci lor maanaam génn na ci nga xam ne daal léegi texe na te texe daal mooy ku set wicc koo xam ne ci lim bëggoon lépp am na ko loolu mooy turu tuubaa te néeg boo dugg ci néegi aljana yi rek da nga fa fekk benn ci jeexital garab googu muy meññet boo xam ne nii meññet mu neex la moo xam ne nii day neex ci nit ki boo koy xool mu nekk lu rafet lool mu ne te gisuñ lu mel ne moom ci àdduna bañ mën ko mën a misal misaale noonu. waaye boo ko boo jëlee le sens étymolo étymologique du terme dëgg-dëgg baat bi li muy tekk ci arab mooy euh, bonheur wala euh, félicité maanaam ak texe ak euh, mbégte. ndax garab la tudd ak garab mu ne day mel ne garab boo ko xool day mel ne daf mu ngi mu ngi soq ko ci asamaan si. te euh, léeg-léegi maanaam leer ga ci jolle bu doon jant da ngaan ma ngi ma ngi sax semence leer ga ci jolle nag day tasaaro ba mat ba mat barab yëpp maanaam ni ñu ko misaale daal mooy ne garab gu yaatu gu rëy gu ne ci aljana goo xam ne nii meññet ba cay jógee mooy meññet mu neex lay doon boo koy xool garab garab gu rafet lay doon goo xam ne nii mësuñu koo gis ci àddina mu ne boo ko doon misaal ci àdduna day mel na koy misaal ni ab jant rek ni jant bi muuree àddina yëpp noonu la garab googu di muuree àjjana ji ni leeru jant bi àgg ci àjjana bi àddina bi yëpp noonu tam la neexitu garab may ñamam di ci àjjana yëpp kon ci gar ngir barkeelu ci garab googu nag ak loolu ci yenn solo wax moom la sëñ bi jël tàmm na ko tuddee ko pàkk bu laab bi mooy Tuubaa waaw ndax fi ne loolu àjjana la am koo xam ne kii maanaam da ngay teqali kooku la faaw am li nga bëgg faaw loolu àjjana la am te dana ko wax sax ci téeram bu ñuy wax adduwaawul kabir dana ko fi gën a leeral fi ñuy wax allahuma innaka qad qutta innaka qutta zimaami ila al ard allati ixtartaha li wa banaytu fihima addaareeni li abuduka fihima bil iman wal islam jeex noonu dañ ko dënke noonu mooy ne yàlla yaa ma wommat yaa wommat samam nos andi suuf si nga xam ne yaa ko tànnal ma tabax fa ñaari kër ngir di la jaamu jaam ngoo wax maa ngi koy teg ci liimaan ak lislaam ak lihsaan nañ ko xame ñaari kër yooyu ma tudd leen genn gi daaru salaam gi des ma tudde ko Touba ngir barkeelu ci ñoom ñaan ko nag nag fajalhuma bi fadlika bi jaahi wasilati ilayka sallallahu alayhi wa sallam saalimatayni tayibatayni amin ñu ñaan ko xam da ko ñaan ne ko nag moo ko defal barke bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ñaari dëkk yoo xam ne ñaari kër yoo xam ne nii ñaari kër yu ci lay doon ci ay xeeti yi gàllankoor dëkkuwaay doomu aadama mu nekk ñaari kër yoo xam te kër yi tey lay doon yu mel noonu boo demee beneen téeram tam bu ñuy wax di danga fekk muy ñaan di wax ne waccal ilaahi maskani tuuba abad mislas miha bi jaay xayri man abad kon mel ni sëñ bi yàgg naa bëgg tuuba loolu nag maanaam moo lay xamal ne kon tuuba sëñ bi ma ngi ko jëlee aljana kon képp koo xam ne kii yaa ngi biir aljana war nga koo yëg bu baax kenn na ngay doxe ak kenn na ngay waxe ak kenn na ngay jëfe ba ku la gis xam ne yow mii kat ku texee ngi nii baatu tuuba baatu araab la cosaan la tam mooy lu teey wala lu neex wala lu mel noonu lu ne tekki garab la tam goo xam ne nga ci àjjana di garab gu mag a mag goo xam ne nii làmb na àjjana jëpp mu jant mu jant bi làmbee àdduna sëñ bi duppee ko Tuubaa ngir barkeelu ci ngir lu ci baat boobee lam rotil àjjana ñu yu mel noonu ci tënk loolu mooy cosaanu baat bi kon dëkk bi war nañu fonk garab war ñu fonk lu rafet ndax loolu bokk na ci lii taaral dëkk bi bokk na tax dëkk bi itam taara mën a feeñ ba nit ñi gis ko di jëmbët garab di ko barkeeloo ci sajaratu Tuuba googu euh, dana tax dëkk bi itam taar bi gën a feeñ kon loolu mooy euh, turu dëkk bi kon loolu la sëriñ bi ñaan ci ci ci mu mel noonu ci ci dëkk bi mel ni niroo ak turandoo boobu nga xam ne mooy Tuuba gën a ki ca àjjana Tuuba leer la gu sar na sar di lerxat bay gand boroom gis ya boroom tàbbi sa foore ba ba faf niru ku réer ndeke booba tuubaa wër wér na dëkk bu sell bi nekk dëkk boo xam ne ni dëkku tànneef la ba ñu bari sax soxla woon nañu ko lool waaye Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba moom la ko suñu borom jagleel wër googu nga xam ni doon na ko wër dëkk bi nag am na ay mbir yu bëri ci aju moo xam ci zaahir wala sax ci baatin di ay mbir yu xóot lu jëm ci fànn googu mbokk yi ci lañuy ànd ak yéen. ci ni ko ñu bari di defee am na ñoo xam ne dañ koy sant sanc ngir bëgg yaatu wala bëgg fuñ dëkk wala ba jamono di naqari ñu dawee feneen di wuti fu ñu dëkk sëriñ bi nag moom. yàlla subhaanahu wa taala moo koy won <clears throat> lépp loo xam ne mi ngi koy def suñu borom subhaanahu wa mooy doon ki nga xam ne mooy doon ab lumière am di ko won lépp lu mën a doon ba wax ko bu dee lu mën a doon mu won ko ne ko lii la fii la euh, mu doonoon it mébétam moo xam ne ni daf ko yàgg bëgg ñaan ko boromam nett nañ ne ñu baree bare ci góor yàlla yi yi ko jiitu woon bëggoon nañ ko am na ku ñuy wax Cheikh Omar Foutiyou Tall koo xam ne ki dafa demoon Màkka ba mu dëppee mu jaar mu mu ba mu ba mu ba nekkee foofa mu gént gis ab lumière boo xam ne dafa jógee foofa rek sawar sow boobu leer leer boo xam ne daf mel daf mel day joxañ ne am na dëkk bu ñetteel ñaari dëkk yi nga xam mooy xaram yi mu jàpp ne moom dëkkam dëkkam la moom ndax moom mu jaahid la woon ku daa yaar la di woote ci lislaam doon kilifa gu mag a mag mu jàpp ne moo ko moom mu daal topp aw tànkam dëppaat delsi at di delsi bi mu dikkee ba Nigéria itam loolu feeñuwaat ko waaye joxoñ rek jëmaat soobu ba tey mu dikk ba Fuuta gi mu dëkk mu mu loolu feeñuwaat ko lumière bi joxoñaat jëm soowu mu dikk Jolof fekk fi Alburi Njaay mu dal toog fa tuuti lumière bi feeñuwaat ko jëm so jëm soowu mu daal di jëm si nag ci jëm si nii ci ci sunu réew mi bi mu dikkee ba nga xam ne yegg si fii ñu wax guy fukki sér nga xam ne mooy fi ñu daa defal sëñ Modou Moustapha Mbacké toolu àllarba fii ci gannaaw Gédé foofu loo jëkk a wàcc bi jant soyee lumière bi feeñu ko jege lool garab bi nga xam ne dafa mel ne daanaka rek ñu ngi seen tund wi daal lépp garab yi lumière bi weex tàll garab yi di wax di xam ne ni fii mooy béréb bi nga xam ne mooy fii lumière bi jëmoon fii la localisé euh, ñu xamal ko ne ko na ko itam nag borom dikkagut ci at mii lay feeñ waaye dikkagut dégg nga mu daal di xam ne kon moomu ko mu ne kon na ne jàll ci ñi nga xam ñoo fi gën a jege ci ay kilifa siyaar leen te dellu daal di dikk ba fu ñuy wuubee mooy yi waa Mbàkke Bawol yi waa de fii ci diggante Mbàkke ak Tuubaa mu daal fi wàcc daal di yónnee Mbàkke Bawol ndax booba gannaaw jiyaarkat la fu muy jëm foo mu diisoo te yëgal leen ni mu ngi ñëw te jàmm ko tax a jóg lu ko may di ñax xaw a tiit mu mu ne daf bëggoon a dikk siyaar si maam moo rontu sëri moom moo gënoon di ndaw booba ci mag ña ñu yebal ko nekkoon ko dikk ànd ak moom dalal si ko gan ñu fekk ànd ak moom dikk mbàkki bawol bañ dikkee mbàkki bawol ñu dalal ko mu doon koo xam ne kii nag boroom kasfu la day day gis li mu gis da koy wax giskat la waaye giskat giskat buy wax la boole ji yàlla dogal mu daal di nekk fi nag di wax lu nekk muy wax di ay ay xew xew ak ak yu yu mu gis daal ci ci jamono ci dikk gut nga xam ne am na fi ay ay jëmm yoo xam ne sax du leen feeñal naan leen yow gis naa la màkka ndekete xaw ma woon ne euh, xaw ma woon ne kii nga xaw ma woon ne fii nga dëkk mu mu mu mu mu mu mu kooku kooku téye gi ñoom ne ko bu mu feeñal ci biir wax yi nag mu daal di seet seet geestu Mamor Sali daal di ne yéen sax day man li ma doon topp leer gi ma doon topp gis naa ko mu ngi fii ci tund bi nga xam moom laa romb. waaye dañ maa xamal ne borom dig fii la fii fii la fii la fii la dëkk ci waaye ci at mii lay feeñ waaw 1853 1853 ci ci ci lay feeñ ci ci te yéen ñi kenn ñi toog kenn ci loolu mooy doon bàyyam ndax bu ñu xoolaatee delloo ci histoire sëñ bi dañu gis ne sëñ mi ngi jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol ci ama assassin 1884 la ñëw Mbàkke Bawol am fa ñaari at daal di sanc Daaru Salaam ci 1886 tuxu dem foofa kon day mel ni 1886 la sanc Daaru Salaam bi mu sanc Daaru Salaam nag la daan def léeg muy fàddu duñ ko gis ngir wéet ak boppam ngir jaamu yàlla ak deeyal ak seen borom subhanahu wa taala ci xur yi nga xam ne waroon Daaru Salaam ba mu yàgg toog fa ab diir deeyal ak seen borom mu yàgg mu dellusiwaat Daaru Salaam ci diir boobu nag ci la def lu yàgg loo xam ne nii gisuñu ko ba njaboot gi xaw a am jaaxle tuuti ak dong yi xaw a jaaxle ngir yàggaayu fàddu googu ñu daal di tasaaroo di ko wër di ko wër ci biir gëstu bi nag gis nañ ne xam nga histoire moom niñ la koy solo day wuute kii da lay wax lii kii da lay wax lii waaye nag dañoo méngale ay ay ay solo yu baree baree bari ba génne ci li ñuy bëgg a tënk. Euh, Serigne Touba mu baax mi moo ko sañci euh, li ko essence bi tamit li ko lal euh, baatin la. ndax euh, maanaam diine la laa bëgg a wax essence religieuse mooy euh, cosaanu dëkk bi ba ni nga xamee ne historiquement noonu la ñëwee ba ci fii tey wax nañu ne fii tolloog fii ñu implanté jumaa ji fii la lumière bi doon bàyyi ko di fi euh, bale foofu it bi mu fi ñëwee ba toll fi ci lañ ko xamal ne ko li barab bi nga doon seet moo nekk nii wax nañu ne foofu taxaw na fa julli fa ñaar rakka donc loolu mooy ni mu trouvé Touba historiquement. Touba nag lu mu doon seet la di ko wër di ko ñaan yàlla itam ndax sëriñ bi lépp lu muy sàkku ci suñu borom subhanahu wa taala donte dem na ba am ko sax bu koy wax ci ñaan la koy jaarale. ci ci guddi gi itam lumière bi noonu la koy feeñoo di ko di ko melxeti di di taymet di jëm penku ndeyjoor defuñu ba am benn bi nag ñu ni ko daal li wóorutul nañ la boole buubu ja ab rëbb la boo xam ne xam na àll bi te yor na ngànnaay muy ànd ak moom waaye mu bëggut ànd kenn bu du wétli ko kenn tam ku dul yàlla biñ njëkk biñ njëkkee jóg ñu ngi jëkk jaar mbal fii ci guy siyaare bi am la ma fi moo xam ne daana fi dugg di fi di fi di fi am ay fan mu daal di fay jaar daal di fay jóge dal di ànd ak moom ñu jëkk ba ci tund tuubaa nga xam booba tund mbal la tund tund mbal la euh, ab foire rek la itam waaye beeñ bu rafet la nag boo xam ne bi euh, mu daal di fay julli yor yor ci ker ak garab goo xam ne gi béb la foofu mu jullee yor yor foofu moo fi képp mooy bérébam bii dégg nga ba mu fa yor daal di fay daal di fay jóge daal di ànd ak bu bu ja ñu yoonu jolof yi dem mel ne koo xam ne ki daal kon euh, jotagu fi nga xam ne fi ñu fi ñu seet la biñ demee ba toll fi ñu wax Kondéré ab déeg la boo xam ne mu ngi si peeg peeg gannaaw ndindi tuuti ci yoonu Jolof mu daal di jàdd foofu ci benn déeg bu fi ne dugg ci dédd ga dugg ci biir dédd ga nekk fa di def ay yëfam ba jant sooy ko fa mu fanaan fa ba bët set ba fajare jotee mu daal di seet seet woo buubu ja bëgg lool ne ko waañ day li may wër bu yàgg ba tey nga xam ne fu ma jëm rek ñu ne ma di foofu fee la xamal nañ ma ne fa ma julli woon yor yor démb ci ci ci ci ci garab gi nga xam ne dafa amuti dégg foofu la. donte dem na ba am ko sax bu koy wax ci ñaan la koy jaarale loolu lum mu doon mooy sëñ bi dafa xam yàlla xam ñaan maanaam ñaan ni mu fooree ak ni mu réyee ak li nga xam ne mën na koo may ab jullit sëñ moom da koo xam ba daanaka waxinam yëpp ci ñaan la koy jaarale. fi nga xam ne mooy fu ma jullee woon yor-yor démb ci fa nga xam ne garab gi nga xam ne amuti dégg foofu la moo mooy béréb bi. ndax mën nga ma faa yóbbu mu ne ko waaw mu ne ko xam nga birab ba mu ne ko waaw mu ne ko fu mu mu ne ko tund wala tund koy wax mu ne ko garab ga lum doon mu ne ko garab ga ak béb la mu ne ko yóbbu ma fa ñu ànd dikk <laughs> bu ñu yegsee fii fii fii fii fii fii fii fii fii fii birab bi nekk tey foofu la béb gi nekkoon mu daal di fay yegg suuf fi nga xam ne fa la jullee woon yor yor dal di daal di na ko fi lépp fekk te te bu fi nit ñi nit ñi nag buñ xamagoon fi mu ne boobu yàlla yi ñoon rek muy dem di féetal ci àll bi dem Daaru Salaam di jël ay bëgg ay gaal ak ay téere ki yëf ak lu mu soxla daal dikk waaye moom kenn du ko fekk ñu ba ba ba ba yàlla xëy ko ci mu sant maam Cheikh Ibra ak ak ak sëñ Mandoumbe ak taalib yu mag yi ñu defal ko fi lakkam ngeer ak ak ak ak mbaaram ngeer fii nga xam ne fii la jumaa ci këppe tey mbaaram ngeer moo fi nekkoon ak lakkam ngeer bu ko wër ak gépp ak géppen mu ne ci biir. waaye kenn lekk du fa duñ duñ seen lekk dugg fa duñ seen naan dugg fa duñ seen doomu aadama dugg fa moom dong moo fay ne bu waxtu jotee ñoom ñi nga xam ne ñoom la nangu ñu dikk di gor ci àll beekat di di àlli bërëb bi euh, ngir bëgg jéem a sañ ci dëkk bi bu bu ñu bu ñu liggéeyee ba xam ne waxtu jot na dañuy dégg muy nodd ci kaw ci biir mbaar mi bu ko dee ñoom ñëpp ñu daw dikk wër mbaar mi mu daal di kabar daal leen di jiite julli bu sëlmalee di jiite leen sikkar su mel ni sikkar si Baay Faal yi def sikkar su dër dër ñu aw ba ba ba mu kii mu daal di joxal ndigal ñu dellu ci seen liggéey moom mu delluwaat si ay mbindam noonu la fa nekk woon ci biir loolu waa Mbàkke ba bi nga xam ne mag ñi jaaxle nañ ci moom ba jaaxle ñu daal di def délégation sëñ bu soobee ci la sëñ Maamor Jaara ca la ak yi mag ñu bari bari ba bokk yi di ko wër seet ba nga xam ne fekk nañ ko fii nga xam ne fi la jumaa ji nekk tey fi la ko gisee mu ngi di def xalwa di fi ñëw di di di di fi def ab liggéeyam ba sunu borom subhanahu wa taala ko ne ko nga doon wër ak fi nga doon wër fii Touba euh, bi ko sëriñ bi euh, euh, sànci fi mu nekkoon dara lu doon milité à ce nit doomu aadama dëkk fa amutoon doonul woon euh, àll boo xam ne ni tàll na ñareet luñ gor la ay garab a fa nekkoon ñaareel ba ay euh, animaux sauvages ñoo fa nekkoon ay gaynde ak yuy lekk yuy mën a faat doomu adama ñetteel ba amutoon ndox parce que wax nañu ne euh, point bi gën a jege Touba ci jamono boobu zone fi sañ bi sàmbalee sañ ci dëkk bi fi ko gënoon a jege ci fu ñu mënoon a amee ndox moo toon na 40 kilomètres diggam ak Touba. ndax gis nañ ne turam yi nga xam ne doon wër sëñ bi mën nañoo wuute ñu ngi koy nettalee diñ ci gën a diñ ci gën a jàpp te tuxale ko ci gëstukat mag a mag si mooy sëriñ Moustapha Abdourahmane Lo yal na ko yàlla yërëm mooy ne lu mat fukki nit ak juróom ñoo génnoon di ko wër bokk na ñooñu tur yi may bëgg a tudd ku ñuy wax Omar Ja Layaabe ci la bokkoon sëriñ Dior Ka ma Malamine Ndiaye sëriñ Ahmadou Gueye Babou sëriñ Mamar Bousso sëriñ Massamba Bousso sëriñ Mayasin Ibou Dieng sëriñ Ahmed Makhtar Dieng sëriñ Makhtar Penda Dieng sëriñ Cheikh Abdourahmane Lo sëriñ Ajara Mbacke sëriñ Mamar Bay sëriñ Mamar Mbay Galo sëriñ Ibrahima Dieye sëriñ Omar Socé sëriñ Adama Sall loolu mooy tur yi nga xam ne nii su duñ gën a tënk jàpp nañ ci gën a wér la bokk mooy fukk juróom yi nga xam ne ñoo génn ñu wër sëñ bi ci biir xalwaam boobu ñu dikk mm, fi fi fi mbaaram ngeer mi laaj taalibe yi ne leen daal sëñ bi daal lañ xamut ci moom dara ak fu mu kii ñu ñu ñu joxoñ leen mbaar mi neen fee lañ ko lañ ko lañ ko lañ lañ yëg ne fa lay yëngu waxtu jot daal dana noddu noo mooy jiite itam waaye nag xamuñ ci moom daan suñ ko nag yaakaar na bu ngeen ko nuyoo dana leen fay ñu wax asalaamaaleykum ñett ñaari yoon kenn fayu leen ba ba ñetteel nag mu leen a fay ñu ne teg waaye néewut leen jàll si leen ñu soog a wax seen kàddu yi bopp nag ne ko daal jaaxle moo nu tax a jóg ndax meng ji ak kii daal xaw naa jaaxal ma soog leen a feeñu ne leen nag béréb bi ma doon wër bu yàgg ba tey de da nga xam ne moom sama borom moo ma ko jox moo nekk fii fi laa ne sama borom moom moo ma ma dugg fii xalwatu bii xalwatu bi itam bu fekkee ne li ma fiy def sotti na sama njëriñ la doon seen njëriñ la doon sama borom nag xamal na ma ne béréb bi suuf ci boppam. li gore na maanaam kuñ fi suul rek da taxe dégg nga euh, lu lu fi nekk lépp gore na da xamal na ma itam ne diggante fii ak fii ñu taxawale bis penc bi it war xaju fi xamal na ma itam ne jumaa ji nga xam mooy gën a rëy ci ci sowu jant bi fii lay am fii fi mbaaram geer mi fii lay këppee mooy fii jumaa ji tekk nekk tey te boobu yéen xel xalaatu di xam xalaat mbaa mbaa jàkk yi ngeer sax waxuma la jàkk yi tabax wala jumaa làkkam ngeer bi itam bu boobaa làkk weñ lay doon booba seng xewagut waaye booba noonu la ko waxee dégg nga wax leen ay firnde yu bare bare daal neen nag ngi ci loolu bu saa su ki may dugg dugg eh, digalee ma génn. biir gis nañ ne xam nga histoire moom niñ la koy solo day wuute kii da lay wax lii kii da lay wax lii waaye nag dañoo méngale. ay ay ay ay solo yu baree baree bari ba génne ci li ñuy bëgg a tënk. ba mu nekkee Darou Salaam toog fa tuuti moom it lumière bu dal di koy daal di feeñu ngir bi Touba bi muy def nag bu bu bu ko mu dal di jóg ànd moom dong dugg ci foore bi euh, léeg-léeg mu am fi ay fan sax yàgg yoo nga xam ne day mujj ni ñu wër di ko di ko wër euh, nga xam ne day nekk ci taati garab yeeg lëm yéeg dédd yeeg kenn xamul daal bu bu bu bu ko bu ko lumière bi feeñoo rek féete ko ndeyjoor wala càmmooy bu xëyee jawali foofa bu demee ba fu ko jant sooy bu fanaanante bu bu mu tamit féete ko càmmooy wala penk wala feneen mu mu def noonu ba nga xam ne day sonn lool ñu jëli ko mu jël see Daaru nga xam ne am na bis ku baax ci ci taalibe bi ne ko am na nañu jaaxal loolu daal di wax yàlla dem gi ngay dem te xamuñu li ngay dox lu mu doon te itam di ànd yow rek te àll bi foore la yoo xam ne mala yeeg yëpp defee ne ah, da daal wóor loolu daal te jaaxal nu mun leen daal ni ma leen ko mën a misaal daal dafa mel daal lu mel ne la daaloon yonent yàlla Moussa daal moo ma daal kaddu goo xam ne dafa ma woo te kaddu gi dafa jóge penku ak sow ak ndeyjoor ak càmmooy fépp la ma féete jaxasoo ci sama yaram mënu ko ñàkk wu ji te bu ma bu ma jógee xam fu jëm bu ko defee moo moo moo war léeg-léeg bu bu dee dox léeg nga gis mu sëset di wax wax mu tàng jëm ni ba yàgg mu ne jalbit wëlbatikaat jëm penk wala sow wala ndeyjoor. dëkk bi nag sëriñ bi bi nga xamee ne mi ngi koy sanc ci 1888 nga xam ne moo dëppoog sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou seen dikk ci àdduna xam ngeen ne Mbàkke Bawol la bàyyi ko fa àdduna fa la mbokkam yëpp nekk fa la waajuram nekk fa la sëñ bu soobe nekk fa la sëñ Mor Jaara mi nga xam ne ñoo bokk lépp fa nekk mu bàyyi ko ñëw Daaru Salaam muy dëkk bi mu njëkk a sanc muy Daaru Salaam nga xam ne gis nga ci biir waxi sëriñ bi daanaka fu mu tuddee Tuubaa rek da nga gis mu tudd Daaru Salaam xam ne ñoom ñaar ay seex la leen def laka daaru salaami rabbi wa tuuba yeneen yeneen bari yoo xam ne fu mu ko tuddee rek da nga gis bu tudd ko ba ni mu fa jógee dikk tuuba moo waral sanc na ay dëkk yu baree baree bari ngir lu demee noonu bu demee ba jamono daf ko foofa ba xumbaay ba tàmbali am mu toxowaat foofa ba ni nga xam ne si nag eh, noonu la jógee nag pour décider pour am tuuba jóg di ko wër Euh, wër na ko ay diir bu sore sore sore diir bu yàgg yàgg yàgg. li gën a siiw ci ne sanc Tuubaa nag mooy ne sëñ bi ko sanc njëlbéenu weeru tamxarit li ñu aama wasasin mu toll ak 1406 wala ñu mel noonu boo xoolee ci date yi ñu gën a xam mooy toll ak 1888. tamit nag mu ngi yoon ci 1888 la. Mm-hmm. war toll ak aama wasasin. Mm-hmm. aama wasasin waaw. Mm-hmm. waaw 1888 la. war tolloog amoo si ci la fi ci la fi dikk mm, ko dëkk bi fi nekk benn dëkk bu spécial maanaam dëkk boo xam ne ni am na ay melo yu mu làmbool yoo xam ne nii wéet na ci lool wante itam képp kuy sanc ab dëkk am na lu tax nga sañc ko dëkk bu sell bi di Touba bëri na luñ ci mën a wax moo xam ci wàllu zaahir wala ci baatin wante lan moo tax ku tedd ki sañc ko ca di ay secret ak ki mbóot bari waaye la nga xam ne moom moom lañ ci mën a xam ci zaahir moo di moom li taxoon mu di ko def moo di tarbiya ak taalim euh, sëñ bi la ko itteeloon mooy àggale nit ñi ci yàlla te pour nga àggale nit ñi ci yàlla dana laaj environnement sain bu nga xam ne barab bu sell boo xam ne li nga bëgg a def ci ñoom lenn luy génn ci bitti lu koy mën a xajamal euh, du fa jàppandi. jubluwaay bi mooy ni ko waxee noonu mooy jubluwaay wéet ak borom subhanahu wa taala moo tax Tuubaa def ko woon ngir kër goo xam ne nii kër noflaay waaye kër jaamukaay yàlla la woon bu nekkee fu fu masaan nekk rek ba nit ñi solal ko daal di dox dem feneen noonu la defoon bu nekkee Mbàkke ba nit ñi commencé bari mu dem Daaru Salaam ngir wéet ak mu ñëwee ba taalibe yi commencé bari mu daal di ñëw sanc Tuubaa ngir mën a wéetal borom moo tax xam ngeen ne bi ñu ko bi ñu koy gës ñu koy seet ba gis ko booba dañ ko fekk xalwa muy deeyal wa taala beneen euh, xereñ koo xam ne ni ku baax ki bi muy sanc dëkk bi def na ko ndax bokk na ci politique laa koy tudde d'implantation bi mu doon def moom sëriñ bi moom sëriñ Touba mooy bi mu sancee foofu ba àggal euh, kàngam yu mag yi daf leen wax ne leen dem leen ba rayon wax nañ ne cinq kilomètres ak Touba ngeen sanc foofa tey julli ci ajuma ci bëgg gum ko bëggoon ak fonk gum ko fonkoon mm-hmm. ak li ko ci yàlla defal lépp mm-hmm. tax na dundam jëpp fii la bëggoon dëkk jëpp mm-hmm. fii la bëggoon dëkk ndax bëgg gum bëgg dëkk bi ak li ko ci yàlla defal ak ni ko yàlla aarale kon maanaam nga xam ne leneen loo ci lu ci am rek lu yàlla do wala waaye fii rek la mat a bëgg a dëkk ndax li ne ci dëkk bi ci dëkk bi rek la nekk lu nekk ñaan nga ko ci ci lu baax ci dëkk bi loolu ne muslim ko fa ci lu ñu lu ñu moytu ci dëkk bi loolu nag yàlla nangul na ko xarfan bi harfin loo fa loo ci wax rek baat bu nekk am na taxaw na moo taxoon sax si Abdou Lahad jamono yi muy nekkee xalifa mu ne moom Matlabul Fawzayni mooy palaam loo ndax baat bu sëriñ bi wax boo geestoo da nga gis ne jëmm ja loola taxaw na lu mel ne jumaa jeeg ak xeet yi demee noonu. nga leen fàttali lu ma leen ci waxoon mu jëm ci suñu dëkk bi tedd bii ci Tuubaa muñ mu dolli ko warmal dolli ko sàmm ci lépp lu fi yëllut ndax borom dëkk bi su ngeen gisee bi ñu koy sëñ mu ne sefeet bàyyi fi warab yu xumb yépp dikk ba digg mandi mu leen wóor ne dara nekku fi woon lu dul ab xalu ak rab leneen nekku fi woon mu fàkk ko ba mu set def ci dëkk bu sell bii tuddee ko turam bu sell wii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonent bi sori lépp lu yàq jikkoon ak melo moo ko waraloon. koo xam ne kii yaa ngi ci dëkk bi la lay yoro ak sa jaamu yàlla ak lépp daanaka day daal dugg ci biir nga nekkatu ci dëkk bi te nekk ci ni nga ci war a nekk kon nga ngeen naa di xam ne kon Tuubaa moom day loo xam ne di rek lu sell la loo xam ne ku baax rek wala ku sëñ bi fonk rek la fi bi mu fi ñëwee nag ci dëkk bi dafa daal di dafa lu ñuy tuddee projet maanaam ab téere boo xam ne téere bi bi mu ko bindee ci biir téere bi mën nañoo jàpp maanaam dafa nekk loo xam ne li ko tax a jóg mooy moom la def ci biir téere boobu li mu bëgg nit ñi mel ëllëg ni bëgg aw nitam mel li bëgg itam ab dëkk na muy war a mel ak lay tax ña fa dëkk bu ñu fa dëkkee dëkkin fa dëkkin wu sell wu rafet wu neex loolu lépp daf ko wax ci biir téere boobu di wax ne wajal ilaahi maskani tuuba abad mislas biha bi jaay xayri man abad wajal ilaahi maskani tuuba abad mislas biha bi jaay xayri man abad wasalli al ali afdal salaat wa alihi wa sahbi sawi silaat وكل من خدمني أو سارا فنجئي واغفر له أو سارا kon mel ni si bi yàgg naa bëgg Touba di ko ñaan ñaan yu baree bari ci ay xasidaam bare ba danga koy fekk mu koy ñaan fonkoon ko lool tam nag pour essence bi tamit li ko lal euh, baatin la ndax euh, maanaam diine la laa bëgg a wax essence religieuse mooy euh, cosaanu dëkk bi bokk na ci yi nga xam ne moom la fi jëkk ñaan ndax bi mu dikkee ci dëkk bi moom bi muy laata ittewoo kër gu mu dëkk wala fu muy dal jumaa ji la njëkk xalaat moom la njëkk yéene euh, fii ji nekk ak xër ak fi nekkoon boo xam ne moom moo fi daan toogal boppam jëmmi jumaa ji itam moo wax ne nañ ko def fii woo sëñ mbakki Buso radiyallahu anhu xamal ko ne fii laa bëgg ñu def fi jumaa ji digal ko ne ko it na ko rëdd sëriñ Mbàkke ko rëdd moom jumaa ji jubale ko xibla ak ni mu war a demee lépp e, ci jamonoom maam Cerno Birahim radiallahu e, sëñ bi ci boppam digaloon na ko ba mu tàmbali woon fii ci jumaa ji ay jamono e, buñ demee ci téere bi nga xam ne sëñ Maxtaar Bintaloo moo ko bind am na téere bu mu ci bind boo xam ne nam tàmbali bu njëkk ba lépp def na ko ci téere boobu. quartier yu mag yi nga dégg ci Touba tey ay kër sëñ bi la woon Daaru Xuddoos Touba Touba Mosquée li ñuy wax Touba Mosquée Daaru Xuddoos Daaru Manaan Daaru Rahman mooy seen soxna ji dëkk Daaru Manaan ci suñu Basiru dëkk yooyu te kër la woon xam sëñ bi da kër gu nekk mu sanc ko ngir dara Daaru Xuddoos fa la daan déyaale boromam bu bëggee bind xasida wala bëgg a wéetal suñu borom yaakaar dañ ko faral dégg ci xalwaam boobu mu defoon ba dañ soo asan feeñu fa ak la ca xew ba tukki ba ba jógee ci ma naan wala daan nekk parngoon ba guddi mu dem fanaan ci këram gi ci dalal boroom xam-xam yëpp gan yi nga xam daan nañ ñëw ganes nag la la soog a euh, am nag euh, sëñ ci nag yenn def nag ay ay kër foofu foofu mu nekkoon ci moom mu daal di fay def kër daal di taxu ab ab ab ab siifoo muy kër Daaru Xudoos mu sanc ko def ab siifoo def muy kër daaru meneen gi mu sanc ko def ab siifoo fee kër sëñ sooy bu nekk mu sanc ko def fa tudde ko daaru rahmaan nga xam ne naar yi moom lañ fa daa daal ñi ko fa si ñu tudde ko daaru naar mu nekk nag moom ci kër gi nga xam ne mooy gi tubaa gi di di baagante nag kër yooyu di di ci dugg xalwaa ka dafay dafay ay taarif ka dafay juróom-ñaari at daal am na ko fi ci dig digal bii li ñu gëstu may mooy ne digaloon na ñeent ci ay dongo yi ñeent ci taalibe yi ñu def ay daara ci ci li wër këram googu di Touba ku mel ne Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ moo sancoon kër mu pare Saalum sëñ Massamba Diop Sam sanc sanc daara mu pare Gànnaar Cheikh Abdourahmane Lo sanc daara ci penku dañ ko xam ne daamaatu Cheikh Ibrahima Fall sanc daara ci sowu loolu mooy kër yi nga xam ne ni sanc Touba ñoom ñoo ñoo fa nekk loolu ay daara loolu ay yoo xam ne nii daara daara yarukaay la loolu nag la commencé nag maanaam dund gi di commencé di dugg ci biir dëkk bi nag-nag nit ñi di fi ñëw di ko fekk si ñenn ñi di ñëw ngir ziyaare si ñenn ñi di ñëw ngir daayante seen moom wax nañ ne ci jamono yi demoon na ba la fa nekkoon ci taalibe matoon nañ fanweer boo ca amajee sa si 1313 tolloog 1895. ci jamono bii tey boo koy jàngat ci tey da gis ne sëñ bi sagesse dëgg la doxal foofu ndax. noonu mu wëralee ak njabootu boppam maanaam les grands dignitaires murid muy cheikh yi ak doomi boppam yi nga xam ne ñoo sañ ci dëkk yi wër Touba moo waral tey Touba benn contrainte spatiale bu ko mën a limité nga xam du demee ne bañ ne fii kat jàmboro ko moom fii ne fu mu màgg ba àgg fa rek ci njabootu sañ ba la moom la fay fekk day daal di intégré wut ci Touba day daal di seey dugg ci Touba boo xoolee ci penk bi da nga fi fekk Bayla ak Taïf euh, nga dem ci côté hmm, bët gànnaar nga fekk fa Dërul Moxti Touba Belel ba Dërul Waxaab ba Aliya nga jël côté bii nii euh, euh, sow bi yaa ngi fa fekk Touba Fall ba Ngaabu maanaam dëkk yoo xam ne nii yëpp ci njabootu sëñ bi lañ donc amul ay contrainte sauf Mbàkke bi nga xam ne si tey euh, maanaam ci administration bi la bokk te it loolu rek mooy li nga xam ne si moo li limité Touba ci wàllu màggaay te day dem a dem loolu teewul. daf waaw daf koy jël waaw. exactement ndax léegi tiim ne ko ba ca kaw ca ca ca Ngaabu. nga xam ne dëkk bi ci boppam. loolu ñu wax sànq mooy li taxoon mu sos ko mooy jàng ak jàngale moo tax bi mu ciy ñaan ñaan yi ci ñaan yi ci jëkk ci gën a bari mu ngi jëm ci wàllu xam-xam wa ci alhu daaban maskana taallumi sama dëkk bii muy Touba maa ngi lay ñaan yow sama borom subhanahu wa nga def ko muy dëkk boo xam ne kuy wut xam-xam di jàng lépp loo xam ne mooy tax loola mu am ko ci njàng ma moo xam ay jàngukaay la moo xam ay jàngalekat la ñaan naa la nga defal ma ko fi ba képp koo xam ne xam-xamal la tax a jóg boo dikkee la ngay wut lépp da ko fi am. dëkkam bi ñaan yooyu mu ñaan ci Matlabul Fawzayni ak loolu mu ñaan ci Matlabu Chifa yi damay wax ne sëñ bi façon ñaan la ko def waaye ñun murid yi bu fekkente ne. bëgg na noo liggéey si ñi bu ñu ko déggee ay ñaan nañ ko déggee ay ndigal yu ñu jox dinaa la jox ñaari eh, exemple day xam dana koy faral di tudd te mooy xaw a junj benn bi léegi wa anzilil ilma makaana al jahli jëm wax ci matlabu sifa yi ak wa anzilil ghina makaana al faqri wa anzilil ilma makaana jahli wa anzilil ilma makaana jahli wa anzilil juuda makaana al la yow yàlla yàlla nga wàcc xam-xam ci barabu fu ak réer nekk wa anzilal yow yàlla yàlla nga wàcc am koom fu ak ñàkk nekk ma loolu ñun murid yi bu ñu ko dégg ak ñaan nañ jàpp ne ndigal yi Sëñ Tuubaa jox la ci naka mooy fi mu ne yàlla na nga wàcc xam-xam fu ak réer nekk bu ñu jàpp ne dañuy xëy xëy rek murid yëpp doon ay kànfoor yi ak doon ay karak doon ay spécialiste ci fan yëpp waaye nañ jàpp ne mooy nañ tabax ay école nañ tabax i daara nañ tabax université nañ tabax ay institut spécialisé de recherche pour que mag ñi ak gone yi gëstu wa anzilal ghina makaanal faqri jooju mu wax ne na nga wàccam comme ci ñàkk bu ñu jàpp ne dañuy xëy xëy rek ay billets di te wàcc ci asamaan di ñëw ay billets CFA ñëpp doon di borom xaalis ku ne la wa de sa yaa moom déedéet nan jàpp ne nañ ubbi ay entreprise yéen murid yi nga xam ne ngeen dajaloo ngeen investir ci dëkk bi ndaw yi fi nekk liggéey bu bu liggéey amee weer dee ñu séddale xaalis mooy ku ne ñu fay la salaire mooy tax consommation am bu consommation amee mooy taxaat production amaat bu production amaatee mooy mën a juraat euh, ay revenu bu boobaa dañuy daal am ñaar ngërëmul yàlla ngërëmul Sëriñ Tuubaa ak adduna euh, ju ju maanaam dund gu tey mooy saadatu daarayni yàlla na ko yàlla defal dara ci sëñ Tuubaa mi